li gën a fës ci yéenekaay yi moom lañ leen di dégtal. ñu ànd ak Mamadou Mohamed euh, njaay gannaaw bañ la nuyoo wat Ndiaye ñu dooree kook euh, yéenekaay bi di l'observateur la ñu koy doore dikk ak ñun ci magistrat séné magistrature Sénégal ak coppite yi ci am démb ci ndajem conseil de la euh, supérieur de la magistrature ci la ñu ko jële bokk na ci Cheikh Tidiane Coulibaly di frère ci Abdoulatif Coulibaly moom la ñu def léegi premier président bu cour suprême Covid 19 bi ak it euh, test ya ñuy def li mu coûté Sénégal ba ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mais yëf ya ba nga woon ci ñaari milliards l' observateur moo dikkee loole dikk naa ñu nit ci. coowal faux billets li sandarma yi teg loxo teñ ci doon tudd Farba Senghor ak Pape Diouf yéenekaay bi Pape Diop yéenekaay bi nee nañu ñoom ñaar ñooñu weddi nañ ko ba mu set wecc Mamadou Kebe benn waay la boo xam ne Touba la dëkk magama faatu ñu koy jiñ ne moo ko faat bu nuppi so sànni ko ci foos bañ ko waxee loole ca kanamu policier la daanu xëm ndax mbetteel mu mu ci am soleil national dikk ak ñun ci soleil national mi am juróom fukki at ak lu tek xëy na di waxtaan ak Baara Diouf muy nittali interview bi nga xam ne def nañ ko ba noppi te mësee su ko publier la tax mi ngi ci biir yéenekaay bi enquête dikk ak ñun ci faux billets yeeg mbiri banditisme yi nga xamante ne ji ña koy def lu dëgg gisuluñ gisuñu leen ca kaw la ñuy nekk di def la ñuy def gis na ne daal euh, fléau la boo xamante ne ji li muy yàq kan bari na Le Quotidien dikk ak ñun ci coppite yu am ci magistrature Sénégal nee na Macky Sall kon yëngal na magistrature bi Cheikh Tidiane kulibali wutu na Mamadou Badio Camara ca Cour suprême dem Demba Kandji gaare ji na ca garage su présidence de la république grand place dikk ak ñun ci kàddu yu mu nangoo ci Amadou Ahmed Ndir mooy directeur général bu Hann Fishing Sénégal nee na gay pes weesu ludul mafia grand place xamal na ñu it ne maam góor Diazaka dañ ko jox ci aide à la presse bi loolee la journaliste yi ne du ñu ko dégg ndax lu mu war def daal bañ koy jox ci aide à la presse bi jaaxal na leen sur soit dikk ak ñun ci xew-xewu jamono bu yéeme xale bu jigéen boo xamante ne ji kon euh, ab seetkat la mm, dafa am benn bàyyi peel bu jugee woon Gàmbi ñëw foofee am lu mu séq ak moom ba kook doom yaay ja ba mu euh, ba mu ko yëgee dafa jël xale ba daal di koy sànni loole sur soit moo ñu ko wax. Vox Populi dikk ak ñun ci coowal foo billets yi nga xamante ne ji ña nga cay ruumandaat ne Pape Diop ak Farba Senghor dañ leen cay tudd Vox Populi nee nañu muy far ba Senghor di Pape Diop ñoom ñëpp weddi nañu loolee kon ba mu set wecc Les ko dikk ak ñun ci ñaari mbir bokk na ci club des investisseurs du Sénégal nee na Madiambal Diagne ak Khadim Kébé démissionné nañu xamal nañu ne këruk euh, Abdoulaye Sylla gi nga xam ne waa Descos euh, ak compagnie dañu ko daaneel fële ca Saly Abdoulaye Sylla nee na nag doy na ba noppi euh, wuti avocat ngir ni ñu koy xaxaraka tapas ak di ko mbii fa fora dakkal ko ndax du caage naka du wax rek tax lu way yëkkati bëgg ko xëpp libération dikk ak ñun ci mbir mu doy waar di ñaari xale yee ñu rendi diwaanu Touba seen baay bi def am révélation yi yéeme yu mu def ca enquête ba euh, lu doy waar sax euh, Barth damay bañ a yàq fajaru nit ñi moo tax jaru jaru tey yàgg nañu xaar ba ci revue de las dikk ak ñun ci conseil supérieur de la magistrature yan leçon la ñu mën a jàngat ci chamblement bu yaatu bi ca am mooy li mu bind ci xët mu njëkk tribune dikk ak ñun ci conseil supérieur bi nga xamante ne ji ca la ñu jëlee dogalu pour jël kii di euh, Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly mu toog ca tooguk du baajo Camara Demba Kandji wutali présidence de la république ci naka loole tribune mi ngi koy leeral Sud du moom it ci loolee la xëy moom chamboulement bu rëy la ca gis réunion conseil supérieur magistrature gis na ne daal bari na coppite yu ca am ñu dem ci yéenekaay bii di record waxtaane wàllu tàggat yaram ñaar la xëyee nee na Kalidou Koulibaly ba léegi waa Manchester United teggiwuñu seen i gët ci ñoom 45 milliards moom la ñu teg ci taabal ji Souleymane Camara Petit Jules journal bi ne ñu kii di Oumar Daf dëggal na ne retraité na maanaam jël na retraitam ci soog a toll ci ki ki nga xam ne moom mi ngi soog a tàmbali di footballkat bi di Haaland. Mhm. Haaland nag boo ko déggee doomu Norvège la boo xam ne. koy wax le phénomène Haaland. voilà ma nga noona ma nga noona moom euh, moom la stade yéene kay xëye nee na moo gën a fort Messi gën a taq Cristiano Ronaldo ci naka mooy fii mu toll nii ba fa ñooñee di toll li muy def moom alaan mii ñooña defuñu ko woon. te daanaka dañoo reprendre euh, Allemagne rek mu dugal. waaw mu ngi noona moom kay. moom daal bel camp yi rek lay gis. xalaan daal mi ngi noonu xalaan la rek. Hmm. ñu jeexalee ak sunu làmb mi di kay ñun ci Modou Lo Balla Gaye 2 Bombardier Eumeu Sène nee na rivalité bu dul jeex mukk ci diggante ñaari ancien roi des arènes loolee moom la sunu làmb xëy dem maa ngi wax càppaaculi maak yow yëpp càppaaculi umpuñu. càppaaculi mm. ndeke mooy Boy Niang numéro 2. ah, ah waaw mu ngoog. noonu la jaajëf Mamadou Mohamed Ndiaye euh, revue de presse bi ni mu gën yaatoo ci euh, journal 8h bi lay doon 6h30 euh, bonjour El Hadj Ndiogou Dène.